ne ci ne sëriñ liggéeyam mooy ko dénk liggéey geneen moo di ay kàddu doy bi taxul bari na li ñu ko def ko ma xam ginnaaw bàyyi ko ab li ma xam rek lay seer

ndax digg rek